وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi nuyu mbokk jullit yi rawatina mbokk yi nga xam ni dañuy teewlu jotaay bi di ñaan suñu boom defal leen jàmm ak tawfeex defal ko bépp jullit ñu del siwaat suñu jotaayu yóbbulum ndaw ñi muy jotaayu fàttali ak jàngale ci téere bi ñuy wax tasawudu sixaar mu mel ni nag suñu jotaay yi weesu jàngale woon nañu lan mooy farataay njàpp ak lan mooy sunnaay njàpp ak farataay njàpp ci boppam ñaata la ci ab lim ak yan ak yan la ak sunna yi tamit niki noonu kon ñu fas yéene jàngale tey nag lan mooy farataay sangu farata mooy sangu janaba wala sangu set mu ne faslun lii ab bunt la fii faraidil xusli ci farataay sangu mu ne kon lii ab bunt la buy jàngale ci lan mooy faratay sangu fa furuudu xusli laa dangay indi faa gi boole ko furuudu gi mooy fa furuudu xusli naa faratay sunu sangu te fii dana dikke xam sa tan mbir muy juróom yetu naa sunu yéene xendas suruuxi fa tàmbali ga fax tafi xencul waddalku ak ragg wal fawru ak gaaw wa tax taxliilu saxar ak xalil karaw ga wa dax yul madfuuri ak nal litiya mooy bés litiya lu killi man ñépp ñeel képp koo xam te ni dafar léttu na mu nekkan farataay sangu set ñaata la mu ne la juróom la juróom yi nag ba ca njëkk mooy yéene ci booy tàmbali booy tàmbali nga yéene teewut nag waxoon na la ci ñàngale mu njëkk ma ne la farataay sangu farata fa ngay yéene mooy booy raxas li tàmbalee sa jumbax ba ci sa bëti oom ba yegg ci say xawra fa ngay yéenee waaye teewut tamit booy tàmbali sanguli rek nga yéene it teewul dina baax kon ba ca njëkk mooy yéene ca tàmbali ga wa dal ko ak ragg ragg nag bu ko waxee mooy bomb ndax dañuy bañ nga jël ndox mi rek sotti ci yaram mi rek di raay di dañoo bëgg foo sotti ci yaram mi ndox mi na ànd ak bomb moo tax mu ne bomb kon bomb mooy ñaareel bi wal fawru mu ne gaaw gaaw nag boo waxee mooy toftale rek toftale mooy loo def benn teg ca ba ca topp bañ a def benn toog ba neex la nga ñëw yeggale ko nga ñëw yeggale ko kon def bi ngay def raxas sa loxo teg ci galaax ndiku noonu nga koy defee noonu nga koy continuer boo def rek def ba ca war a topp mu gaaw wa tax lii lu saxar mu ne xalil karaw ga kon na bàyyi xel ne bépp karaw bu nekk ci sa yaram rek moo xam karaw bopp moo xam karaw sikkin wala karaw wu man di doon rek boo ca yeggee di ko raxas danga koy raxas te xalil ko tas tas karaw gi ba ndox mi mën a dugg ci biir ndax dañuy bëgg fépp tooy mu ne wa dax suñu madd fóori bés léttee mooy nal léttee bu dee suñu mbokk jigéen ñi nga xam ne dañuy léttu wala létt yoo xam ne dafa dafa dafa fatt na fexe ba bës létt yëpp ba ndox ma dugg ci der bopp ba ba tooy ba deri bopp ba tooy moo tax mu ne nga nal létt yi fexe ba dugal ci ndox mi ba deri bopp ba tooy wala nga firi ko rek bu mënta ñàkk képp koo xam ne dangaa létt rek mu ne kon noonu nga war a def boo àggee ci sangu farata yi kon boo ko limee juróom mu ngi noonu ba ca njëkk mooy yéene ñaareel ba mooy ragg maanaam fépp foo ndox ma jaar na ànd ak bomb ñetteel ba mooy toftale ga ñeenteel ba mooy xalil karaw ya juróomeel ma mooy nal létt ya kon loolu mooy juróom yi nga xamante ni mooy farataay sangu farata ndax dañuy bëgg sangu farata yaram wépp tooy ak ndox te na ànd ak bomb fu ndox ma jaar rek na ànd ak bomb te na yéene waaye nag nanga nga toftale farata ya kon loolu mooy juróomi farataay sangu farata mu ne fas lun li ab bunt la fii suna ni yi ci sunnaay sangu farata kon bunt bi mooy sunnaay sangu farata mu ne fa sunanuhu ay sunnaam moom sangu farata arbaxun ñeent la xaslul yaddi mooy raxas loxo ya xindabtidaay fa tàmbali ga kal wudu i niki njàpp faqtadi royal madd madatun gallaxndiku kazalika niki noone istinsaaxu mooy sarlaxndiku masxo simaaxu usnayni ak masa bën bën nopp ya am man jële ci ña nga xam ne faaxu kawe nañu kon loolu mooy sunnaay sangu farata kon moom it ñeent la ba ca njëkk mooy raxas sa ñaari loxo ba ca tikki jare ni nga xamee ne booy tàmbali jàpp ni ngay def dangay raxas sa ñaari loxo ba fi ngay takk montul wala bu dee jigéen fi muy takk ay jara raxas goog nga koy tax raxas kon sunna la ci sangu farata mu ne comme ni ngay def booy jàpp rek ñaareel mooy gallaxndiku galaxndiku nag mooy jël ndox mi dugal ko ci sa gémmañ yëngal ko daal koy door a yàbbi loolu mooy galaxndiku ak saraxndiku ak masaa bën bëni nopp kon yooyu ñeent yooyu mooy sunnaay sangu farata ba njëkk mooy raxas sa ñaareel ba mooy galaxndiku ñetteel ba mooy saraxndiku ñeenteel ba mooy masaa bën bëni nopp ya kon nag loolu mooy ñeent yi nga xamee ne mooy ñeenti sunnaay sangu farata kon mu nekk lu am solo buñ ne masaa bën bëni nopp yi nag dañoo bëgg lii feeñ ci nopp bi yëpp nga raxas ko ba mu set ba raxasaale ba ci biir nopp bi bu mënta ñàkk comme ni ngay raxasee boo yeggee ci biir ba ak ci dënd ba na nga koy raxasee noonu ngay raxasee nopp yi kon yooyu mooy sunna yi ak galaxndiku ak saraxndiku ak raxas sa ñaari loxo booy doo tàmbali comme booy jàpp ni ngay def kon ñeent yooyu mooy sunnaay sangu farata kon mel na ni mën nañoo yamandi foofu ba beneen jamono insha allah rabbi mooy farataay sangu farata ak ay sunnaam beneen jamono dikkee insha allah rabbi yàlla nañ ko yàlla may ñu fekk ko te tal ko ñu jëlaat bind yi ci topp kon ñu ngi wàcce kàddu yi di sant ñëpp di gërëm ñiy teewlu jotaay bi yëpp di ñaan suñu borom fay leen aw yiw ci barkeb Sëriñ Tuubaa te defal leen ngëneel yu kawe kon lépp lu fi jub ci jëmmi yàlla suñu borom la moom mi nga xam ni mooy aji lu fi dëng jëmm yu xeeb yi la ñu ngay jéggalu di ñaan suñu borom mu jéggal ñu in uridu na al islaaha ma sataxtu ma tawfiiqiya illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu